Boucher maa ngi lay waaye fay naa la waay sama waay. ci bu baax siyaar naa la. lan moo sa teewaay fi. waaw sama koñ géejawaay deretu géejawaay bi rek moo ma teewal fii deretu géejawaay ak sama rakk yi Bou Siteu. ñu gis sa combat bi mu nekk sa drapeau mu nekk drapeau boo xamante ni diggante géejawaay la ak maanaam Lansar. naka nga gisee ñaari xale yi. waaw xale yu am qualité lañ xale yu am avenir lañ xale yoo xam ne lañ mën nañoo xam lu ne mais dañ ko teg ci yar ak teggin xam ni amaguñ dërëm ci làmb yoraguñu dara dañoo te nit boo bëggee da ngay naxante ba jot waaye boo jotagul di jaay fukk wala di jaay star dara doo am di ñaanal bu ndam bu baax ndax sama rakk na sama xarit la ñu nekk Géejawaay traite du Géejawaay boole ñu ñu yàgg ah, ay années. depuis deux mille ay deux mille ñoo nekk fii di yarandoo fii màggandoo doo xam nga kooku nag duñ def lu ñu mu xewle ñu jàpp ci liñ ci mën taxawu ko teewal ko ñaanal ko yàlla may ko ndam. am nga Fallou moom mi nga xamante ne nii moo jël combat bi ëpp coow ci bés bi mu duppeeloo waaw Fallou naanaan la saa yi tëggee nga ne lii du fees waaye buñ demee stade bu fees tel parce que qualité yi muy tëgg la Fallou moom yàlla ko yàlla lafal car rek parce que muy jàppale seen mi jàpp jàppale booy yi xam nga mi ngi leen di dimbali ah di leen génnee di leen fay xaalis bu weex tàll ndax boobu muy xaalis bu weex tàll lañ ko fay pour mu bëree ñu ngi koy ñaanal ndam bu baax a baax. mais bu ma laa dégg ko ba jëm fii te jéewuma sa combat MMA yi ndax boobaa ak léegi waxaguñ ci bu ci bëri yaakaar nañ ne Boucher wax la mën ak comédie ak reetaanloo nit ñi mais keroog danga bett ñu bari nag ba ci man mii. non des na yéen delloo xool nii rek delloo ma jàppee comédie yooyu rek yi li des li des loolu a découvrir ñett yi jàppee leen ma ko tànk yi rek ma koy jàppee yàlla dina ma suturaal comédien dof xamul lu mu bëgg ñett yooyu buñ la ko jàppeewul ci réew mi rek ñëpp lay raw buñ la ko jàppee rek mooy yàlla dimbali na nga la ci lomi ñàkk bi ak lomu toroxlu bi mais li ma ci jaaxal mooy da nga doon làqatu di entraîner avant ñu lay wax waxi moom laa lay wax jàppee leen loolu yëpp rek na bàyyi ma ma nekk ci sama ruq man lii ñëw moo lii ñëw lii feeñ si moo gën a garaaw li ngeen gisagum nii. ñoo ngi doxaat sa combat ak keneen ndax keroog moom jëf jël moom man passé laa dëkk mais ko sama xol neexul fi mu toll ñu ngi lay waxaat keneen wala yaa ngi toog di xaamale. waa Zos tapet bi Zos. dugg ci loolu. non Zos du dara tapet la li ñu wax rek. Aliou door na ko gaañ ko nga ba koo jël. la ñëw ñu bëri. MMA wala bëri bu Sénégal. fu mu fu mu bëree ma toroxal ko MMA ak Sénégal fu mu bëree moom kii di moom kii di Mbay du ma leen may xuut. nee na Zox bokku ci seen loolu boobu de si la bokke bokku ci non man Zox Alaaji Mbay nga li ma Alaaji Mbay champion la man champion la Zox champion la nañ ko def tournoi ñu Sow Alaaj Mbay ma am ci trois faits ñaar six points laa ji am jëm taxawee ne mais mais mais nag mais nag poussé dafa am luñ la déy wala boo temps yi da ngay yëg sa bopp moo tax ngay waxee ni ngay waxee ñaanu waajur am ba sentir ko ba yëg ko ba xam ko ak ay mbir yu may feeñu lépp ci cadre ñaanu waajur teguma ko feneen nag ñaanu waajur rek laa am ba pare taalibe Serigne Touba yi bëgg ma xam nga boo nekkee murid doon taalibe Serigne Touba jàmm rek ngay am foofu rek laa ko wér jëm kontaan naa ci yow.